ah dinaa jël toppatoo sama professeur di si ne la muy format dem sant yëpp di ko jaaree si sa gàllankoor dama yàgg si loolu c'est un combattant de la liberté. ndeysaan mu war seetlu ne sama xarit intime la euh, bu événement amoon dama ko daan jox message mu tontu na ma doyen wax nga dëgg waaye mënumaa def leneen lu dul loolu kooku yàlla na ko yàlla xalaat yàlla na ko xayma àll bi ci barke alxuraan bi ñu juddoo di barke alxuraan bi ñu naan barke alxuraan bi ñu ko teete barke alxuraan bi ñu dund barke alxuraan bi ñu météo ci barke alxuraan bi ñu gis sàmbaram ci barke alxuraan si la si la sëriñ ñaanal ci ñëpp ñu